waaye euh, ni mu mën a waxee donc euh, tiré nañ ko keroog bi ñu demee tirage bi donc euh, groupe la bu metti aussi. parce que nit ñi dañ naan Japon rek mais Belarus aussi tamit équipe bu mag la. je pense que doo sous-estimer Colombie parce que Colombie ñu ngi doog a ñëw. coupe du monde mais nañ def attention parce que équipe bi di doog a ñëw coupe du monde dañuy bëgg a prouver mais li si gën a am solo aussi tamit euh, mooy euh, Belarus ak Japon surtout Belarus boobu ngay xeer boobu Belarus équipe bu mag la ay équipe yu yu costaud lañ. Mm-hmm. am ay jour yoo xam ne même jeu wu Sénégal bi ñoom la ñuy parce que mooy jeu direct bi ñuy jouer parce que dañ am ñoo xam ne dañu njool si kaw ba pare physiquement dañ taxaw boo ñëwee si Japon aussi Japon aussi c'est même chose la aussi parce que boo xoolee moom moo ñu éliminé woon en demi-finale. Mm-hmm. Euh, bi mais Japon aussi même boo xoolee pratiquement heureusement joué wuñu ñoom parce si diggante bi demandé nañu match yu bëri match amical yu bari mais munu munuñu ko woon am mais je pense que c'est bien comme jéewuñu wax ñoom mais aussi tamit euh, Japon ni ma koy waxee Japon toujours dafay progresser malgré que Coupe du Monde dafa progresser donc li ma mun a wax donc nekk nañ ci poule boo xam ne si poule bu metti la parce que ñun poule bi ñu nekk ak poule bi Brésil nekk c'est la même chose parce que même boo génnee foofu il faut essayer nga soog génn si premier premier ou deuxième mm-hmm. mais boo génnee premier mun nga rencontrer comme Brésil fële comme mun nga rencontrer comme Portugal mais li ma gis moom mooy ce sera euh, quelque part une opposition de style parce que Colombie certes mu ngi door a ñëw. Euh, jeu bi nga xam ne Sénégal mu ngi koy pratiquer ce sera le jeu direct comme ni nga koy waxee donc c'est un jeu boo xam ne pratiquement euh, Sénégal moom la séduire toute l'Afrique ba tey am loo xam ne wane kon na wane na ko tey dans cette coupe du monde mais quelque part. les limites yi nga xam ne ce jeu là wane na ko ba Sénégal quelque part dafay am des difficultés face aux grandes nations là tey ba doon xool ak euh, ce groupe là opposition de style bi Sénégal est-ce que amul leneen loo xam ne war na ko mën a aussi travailler par rapport ak loolu noonu. oui parce que xam nga tey euh, même boo demee tirage bi équipe yu bari euh, mun naa wax ne dañ doon euh, xawoon ragal tuuti Sénégal. Mhm. parce que tax ñu ko doon ragal parce que Sénégal équipe bu jeu direct la mais Sénégal équipe bu physique la aussi tamit te but ci su ko boo koy wax physiquement foog nga pare ñun chance boobu lañ doon am parce que équipe bu physique lañ am. mais exemple aussi tamit bul fàtte ne aussi am nañ équipe boo xam ne tamit techniquement sont bons mhm. am ñaar parce que am nañ physique am nañ jeu direct mais ñun dañ mën a jouer si suuf si aussi tamit. Mhm. donc les Européens sont bon ñooñu gën a parce que ñoom technique la ñuy ci kaw mais ñun ci suuf la ñuy aussi mais ni ma mun a expliquer foofu rek euh, coupe du monde boo xam ne buy métti lay doon du yomb aussi tamit parce que ni ñu koy yaakaare mais li ñu ciy gën a mën a génnee dëgg dëgg wala pour ñu mën a man je dis pas dañuy dem jëli ji coupe du monde dama naan dañuy dem pour def participation bu am solo bu am importance loolu moo ci ëpp solo mais. loolu ce sport dafa nekk loo xam ne demal étape par étape c'est-à-dire quand je dis étape par étape man je dis que damay préférer ne damay dem assurer premier tour après doog a xalaat deuxième tour ba dem ba ba dépasser fi ma demoon mais aussi bu leen fàtte ne aussi tamit euh, euh, tey ji est-ce que manque ambition la non bu ñu comparer tamit suñu bopp par rapport les autres équipes ñox ñoom yamuñu parce que équipe yooyu ils sont plus que de moyens si ñun ils jouent plus que de matchs amicaux aussi ça veut dire je un exemple ñun année passée année ça fait deux ans de cela bi ñuy dem en demi-finale euh, Coupe du Monde avec Japon ne n'oubliez pas à 17 matchs de nga xam ne seen match de préparation yi fu donc on avait 16 à 17 matchs de préparation ay lu mel ni Japon bi ñuy dem en demi-finale jàppal ne ñoom équipe yooyu amoon nañ presque vingt et quelques matchs de préparation donc bëcc su ko dama bëgg a expliquer pour nga football ko du juste physique du juste entre mais il te faut beaucoup de matchs amicaux parce que matchs amicaux yi moo la siy mën a génne. sa préparation fu mu toll. suñ prépa ñu ngi si préparation bi parce que déjà ñu ngi en regroupement à à à comment il Plaza mooy jàmmalaay mais. regroupement fermé def nañ deux semaines travail fermé intense avec préparateur physique donc maintenant ñu ngi dugg nag ci période di jouer ay mat mais il nous faut beaucoup de matchs amicaux ce match de amical yooyu nag moom laay njëkk a demander pour la fédération football ñu gën ñu ci jàppale. parce que c'est très important non parce que je viens d'arriver je viens d'arriver parce que tiré nañ poule bi. Mm-hmm. donc xam nañ ñun ñi ñuy dajeel donc en même temps aussi. am nañ ay contact foofu parce que am na si équipe yu bari dañ bëgg a jouer ñun ay match amical match amical yi nga bëgg mhm. dañ ci tàmm maanaam ay ngeen ngeen jouer ay match maanaam ay club wala da nga si tàmm jouer ay li nga xamante moom ay équipe nationale non mais écoute euh, tey aujourd'hui si tu veux exemple déjà comme ni ngeen ko waxee ne est-ce que euh, euh, boobu waaw manque bëgg a gagner coupe du monde mais il te faut des matchs amicaux avec des grandes équipes parce que tey bu fekkee ne si tu ne joues pas avec les gens des grandes nations mhm. mais comment tu peux dire que tu peux aller gagner la coupe du monde c'est pas possible mais coupe du monde bi weesu bi ngeen toogee demi-finale ñoom nee nañ nañ promettre gars yi fii ak 4 ans xam ne Sénégal bu ñëwaatee seen objectif moo nekk li nga xamante moo di coupe du monde mais bu ñu gisaat tamit nga waxaat tamit nee ni da demee par étape par étape xool premier tour bi tamit di ajaat di ajaat tamit wax tamit lu ñu lu ñu mën a nangu la ok li joueurs yi wax loolu la joueurs yi ñoom ñoo wax loolu man je parle en tant que entraîneur man li may wax man ce que je dis je dis que je vais aller étape par étape. absolument il faut pas que ñu fàtte ne aussi tamit bu ñu fàtte ne aussi jour jour la day am ambition pour atteindre niveau bu bari mais aussi tamit dafa am ay mbir yoo xam ne dafa nekk ci biir tey aujourd'hui je donne un exemple banal cette le dernier tournoi on est pas fan lañ dem on est parti en Grèce. Mm-hmm. bi ñuy dem ah pardon Russie. ñuy dem Russie on est terminé combien on est terminé troisième. il y avait Iran. Mm-hmm. il y avait Russie il y avait Émirats. Émirats mm-hmm. après ce tournoi là. ce que les gens ne comprennent pas on a resté deux ans sans jouer comme un match amical international donc yooyu yëpp c'est des facteurs yuy jouer aussi donc lool en tant que coach da koy xam mais koo xam ne nekkul coach mënu ko xam aussi tamit le jour Buccu Soko dafa soxla non seulement sur le plan physique sur le plan tactique mais dafa soxla compétition parce que compétition boobu moo koy mun a faciliter tâche yi mu dem mooy ni may répéter encore quand Sénégal était en demi-finale de Coupe du Monde j'étais on a eu presque 17 matchs de préparation maintenant moi je demande aujourd'hui j'ai venu je demande la fédération football sénégalais pour que loolu ñu mun ko amaat wala même buñ ko amulee on va essayer de d'atteindre 10 à 15 matchs. Voilà maintenant j'ai amené mon Alors,